mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii si seen chaîne youtube seen acti tv tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi nag ndiki tey dinañ ko door ak coupe du monde bi am foofee ca Qatar ginnaaw nag match bi ree ñu jugee doxoon suñu digganteeg Pays-Bas tey nag Sénégal rek jot na jonganteeg équipe bi nga xam ni moo di Équateur daal koy dal daal di koy daal di daan ñaari bal ci benn ngir rek qualifié huitième de finale fàttali ko rek mbokk yi tey la 29 euh, novembre tombeek euh, génn àdduna ki fi nekkoon ab footballeur bu mag euh, représenté Sénégal fu nekk di wuyoo si pab bu ba Diop moo tax nag amaloon nañ ko ak ovation foofee ca Qatar waaye joueur yi rek rendre nañ ko hommage naka noonu yoroon nañ ab appuis bu ñu bind rek tout la never die loolu nag lay tekk ci olof rekk gaynde dëgg du dee moom nag di Pape Bouba Diop tey nag sargal bi nag neex na loolu ndax nag neex na trop ndax li nga nag moo di pays bii di Sénégal dem na qualifié foofee ca Qatar ngir amal rek huitième de finale di fàttali nag ba tey Sénégal moo nekk pays africain bu njëkk a tegle deux victoires consécutives waaye moo nekk tamit pays africain bu njëkk a génn ci poulam dañuy daal di xaar nag niki talaata yam niki dimanche yam ak ñeenti fa ci weeru décembre ngir rek ñu mën a jouer eh, yeneen match ci des daal bi lépp compétition waaye dañuy des ci cadre football waaye di eh, xbet eh, xbet nag buñ ko déggee de ab application la rek buy war a ngay parier dañuy ñëw rek ci société bi di Lonase dañoo seetlu rek ndawu réew yi léegi daal dañoo focus trop ci li nga xam ne moo di joué xbet ak pari foot rawatina nag publicité yi daal dañoo saytu rek dafa jéggi dayoo fépp foo tourné rek fépp foo dugg dañ leen di may visibilité rek ngir rek xale yi di dem di daal dem ci addiction boobee di pari foot ba tax nag ñenn ci ay kàngam fii ci Sénégal génn rek pour daal di xeex loolu li nga xam ne moo di pari foot dafa bëgg jël ampleur boo xamante ni ndaw réew buñ ci toppee du ñu daal di góorgóorlu ci li ñuy jàng dafa yomb trop fi nga toog di parier ay xaalis waaye nag dafa nekk loo xamante ni boo ko tàmmee day daal di nekk addiction ci yow te nag ñoom gis nañu tamit publicité bi dafa jéggi dayoo te nañ ko jéem a wàññi li ni mel nag ay kàngam fii ci Sénégal ñoo ko daal di génnee euh, jëmale ko rek ci ñi nga xam ne moo di société bi di Lonase rek ñu wàññi li ni mel dañuy des si coowal aji Sarr ak Sonko ndax euh, ki nga xam ni moo di aji Sarr ginnaaw nag ba nga xam ne plus bi il est en cours ba tey kenn xamagul fu dëgg féete ñoo ngi woote ñoo ngi wuy ji ñoo ngi ñëw di toog waaye ba tey yoon tranché gul xamaguñ ba tey fu dëgg féete de xamaguñ ba xam euh, kan moo tooñ waaye nag euh, ay fan ci ginnaaw ki nga xam ne moo di animateur ne woon foofee ca 2 di wuyoo si turu Tunkara dafa daal di wax rek ki nga xam ne moo di aji Sarr dafa disparaître dañoo toog ba si yàgg gisatuñ ko déggatuñ ko waaye nag dañoo toog ba si yàgg rek seen Adji Sarr moomee doon dugg si TikTok bi rek ànd ak ki nga xam ne moo di Gabrielle Kane di def ab publicité benn agence waaye tamit gis nañ ki nga xam ne moo di Adji Sarr di doxantu ci ay boutique coowal drogue foofee ca France jëmale ci Modou Modou yi di fàttali ko rek France 24 jamono yële yële ca ginnaaw jotoon nañoo def ab reportage jëmale ko rek nekkee ci ab bande de trafiquants de drogue yoo xamante ne fii ci réewum Sénégal la ñuy yeewoo waaye nag foofee ci France la ñu daal di dëkk ñoom nag ab gang dañ fa yor di jaay drogue ñoom nag bañ demee nag ba li nga xam ne moo di réew France ciblé leen jot na euh, jàpp ñenn ci ñoom waaye nag jot na remonté réseau bi euh, ba daal di rek jàpp koo xamante ni moo leen doon éclater kiñ jàpp nag lii la wax nee na nekk France di jaay ay drogue ngir rek di tabax ay kër ak di dundal samay famille ci Louga li jot na dëgg ñi nga xam ne ñoo di français yi waaye jox na dëgg nga xam ne ñoo di enquête bi jàppoon ni rek te avant dara ñu ci am lu leen leer waxoon nañ ni bi lépp réseau euh, Sénégal la ñu dëkk rawatina région bu Louga ñoom nag waa France jàpp nañ moodu moodu yu Louga yi nekkewuñ dara lu dul France du dul jaay drogue maanaam nangu ñoo liggéey nangu ñoo def dara waaye nag drogue ba ñoo ko fay circuler ñu ko fay jaay euh, ba sax dañuy faral di génne yeneen frontière dem di jaay yeneen dëkk li ne mel nag mun leen a indi ay problème waaye bu ñu jógee foofu dañuy daal di ñëw fii ci Sénégal rawatina ci université bu Bambey ginnaaw nag ab étudiante bu nekkoon foofee ci université bu Bambey lañ fekk ci ab néegam mu daal di euh, dee ba wow moom nag li ko rey du leen du ab crise d'asthme bu mu def waaye bu mu ko doon def nag dafa fekk ñooñu mu bokk ak sembre kenn newu fa woon moom nag noonu la daal di defee ab crise amul ku ko wàllu mu sonnoon loolu métti loolu ba mujjee rek daal di ñàkk bakkanam ñu mel nag métti na ay mbokam waaye métti rawatina képp ko dekk rawatina nag waa université bu Bambey dañuy daal di demaat foofee ca Qatar ab interview bu ñu amaloon gannaaw match bi ki nga xam ne moo di El Hadj Diouf na yëkkati ay kàddu di xamle ne rek li ni mel nag waa équipe bu Sénégal dañ ko amoon gaynde bi dëddu fii di Pape Djibo Diop yoon la te it nag sag la ngir rek ñu daal di gagné équipe bi nga xam ne moo di Équateur ngir rendre hommage ki nga xam ne moo di Pape Djibo Bouba nekkoon fi ab légende waaye nekkoon fi ab gaynde xeexal Sénégal ba xëy faatu moom nag nee na li di mel bett ko te nag focus ci di des ci des moo ëpp ñu gën a góorgóorlu rek incha allah Sénégal ca kaw ca kanam comme ni ñu koy dal di waxee à l'international Sénégal rek waaye mbokki internetu seen acti TV xibaar nag dinañ ko ndar keppee foofee ca Saint-Louis ginnaaw ab match bu amoon foofee ca jama bi lépp match nag ab match la woon comme match yëpp di woon ab nawetaan amoon waaye bi lépp match nag ni mu mujjee dafa jéggi dayoo trop ñoom nag football moo leen boole woon waaye nag dañoo mujj ab xeexoo ba am ay gaañu gaañoo ak yeneen topp ci mbokki internetu seen acti tv tey nag li leen indiloo ci la gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu wéyeen di leen di abonné te bu leen di fàtte di ab yeewu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne youtube seen acti tv